Ibrahima Diop suñu coordonnateur national yaakaar naa ne Amadou Dieng suñu porte parole ñuy ne ñëpp présenté na ñëpp journalistes yi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci seen taxawaay yéenay quatrième pouvoir yaakaar naa sax yéenay principal pouvoir bi léegi parce que yéen yéen a yore mbir yi yéen a yi yéen a koy expliquer sax di ci sore nag am ay chroniqueur yu bare bare seen biir di influencer opinion tey nag dama waxtaan ak yéen ci ñaar wala ñetti ponk yoo xam ne euh, jàpp nañ ne lu am solo euh, Sénégal euh, ñu ngi ci crise politique ubbeeku le 3 février defoon nañ fi suñu point de presse wax ne coup d'état constitutionnel le président Macky Sall tàmbale woon ñu wax nag ni ñun dañ ci taxaw ñu ñu nangu mu réussir danañ ci mobiliser wu dañu ko attaqué en justice mooy décret bu mu jëloon le 3 février ne day dàq mais décret boobu dafay annulé li ñuy wooyee convocation du corps électoral daanaka moom mooy 25 février day woo Sénégalais yi citoyens yi électeurs yi ne leen ñëw leen voté le 25 février décret boobu nag la annulé woon alors le 15 février. 15 février 2024 muy jour bu am solo ci histoire politique du Sénégal ndaxte bés boobu le conseil constitutionnel jël ñaari dogal benn bi mu ne décret boobu ma doon wax sànq ne ne décret boobu c'est illégal amul benn base a donc annulé na ko kon Macky Sall la mu waxoon ne dafa annulé convocation corps électoral bi génnee nañu lool kon nag corps électoral bi ñu ngi ko doon effectivement continuer di ko woo le vingt cinq février deux mille vingt quatre loolu la fi ñaareel bi mooy ne conseil constitutionnel nee na recours bu député yi assemblée nationale ñaari recours la sax mais en tout cas ñaari recours yooyu député yi signé ko man bokk naa ci ñu signé benn ak député Yewwi Askan Wi Pastef yi recours boobu dafa ne conseil constitutionnel proposition de loi bu ñu voté assemblée nationale le 5 février gis ngeen ko ba gendarme yi ñëwee jàppale gaañ yi ndax député yi ñu mën a voté na proposition de loi boobu méngoo la constitution Sénégal muy lu rëy du lu ndaw parce que proposition de loi boobu maa ngi leen di fàttali dafa ne dafa bëggoon modifier article 31 bu constitution bi ne benn day dàq élection yi ñu jógee 25 février 2024 ñu dem 15 décembre 2024 ñaareel bi mu ngi ci diggante bi donc fukki weer yi que président Macky reste président de la République ak toutes les fonctions daanaka mooy ne dafay prolonger mandat de dix de fukki weer loolu la proposition boobu doon wax député yi wate ko foofu ci assemblée nationale recours boobu la ñu def devant le conseil constitutionnel conseil constitutionnel ne àndu ci tey àndu ci ëllëg méngoowul ak suñuy constitution ndaxte constitution bi dafa ne mandat président de la république bu Sénégal ñaari mandat la mën a doon ñaari mandat de cinq ans loolu la conseil constitutionnel wax dëgëral muy lu rëy ci histoire politique bu Sénégal muy lu rëy ci démocratie bu Sénégal muy lu rëy ci taxawaayu Sénégal ci mbirum démocratie parce que Sénégal la mu am nee naa suñu nekkee or nañu wut am na ñu ñu ëpp or fii ci sous-région muy Guinée wala Ghana wala ñeneen suñuy wax pétrole wala gaz am na ñu ko jëkk am mais ñun lu ñu am war ko téye suñu ñaari loxo mooy suñu modèle démocratique modèle démocratique boo xam ñu ngi ko fi dawal ñu am suñu alternance l'an deux mille deux mille douze modèle boobu pour mu jëm kanam réforme bii bu may wax sànq président de la république ñaari mandaa la mën a am de mandat de cinq ans loolu lu rëy la xeex nañ ko depuis très longtemps conseil constitutionnel léegi consacré na ko jàpp nañ ne léegi léegi réglé nañu problème boobu définitivement te su boobaa pays Afrique de l'Ouest ñuy xool yépp dinañ xam ne yoon bii lañu war a jël moo tax ma wax ne le 15 février c'est un jour historique ci histoire politique du Sénégal c'est un jour historique pour notre démocratie te war nañ cee delloo njukkal conseil constitutionnel conseil constitutionnel ont été éclairés loolu laa mën a wax leeral mbir boobu taxaw ci taxawaay boobu loolu nag moo am ñaareel bi mooy président Macky Sall ci boppam ne moom ànd na ak décision conseil constitutionnel te loolu moo war a am ñu ngi ci état de droit mu ñu ñu wax ñun ñu ngi ci état de droit ñu bind suñu constitution 2016 donc man ànduma ci woon sax ndax wateewu ma ko mais nangu naa ko parce que majorité bi loolu la ñu wax ne conseil constitutionnel am na dogal yoo xam ne moom moo ko war a def surtout lu jëm ci élection te su dogalee kenn du ci teg baat su dogalee kenn du ci teg baat article 92 de la constitution kon nag luy ndeyu mil bi constitutionnel su waxee ba pare ñu am ñu ci teg baat nañ xam lu ñu bëgg ou on est dans un état de droit ou on est dans un état ku mu neex lu neex wax mënta continuer nañu jàpp suñu état de droit quelles que soient les difficultés waxuma ne amul difficulté am na ay insuffisance am na ay manquement et alors on les corrige donc le 15 février boobu c'est à marquer dans l'histoire du Sénégal léegi nag conseil constitutionnel yamul foofu dafa ne 25 février bi élection mënta am constaté na ko mu ne les autorités président de la république administration dans les meilleurs délais na ngeen organiser élection yi di leen xamal nag ne le 2 avril da ngeen war am président boo xam ne de passation de service ak président Macky Sall parce que mënta am plus de deux ci biir loolu nag nañu nekk biir loolu nañu gëstu biir loolu nañu manifester le 15 février 2024 quatre heures dans l'après-midi diggu bëccëg nar a kaam maa dox ndànk dugg présidence de la République du Sénégal président de l'institution président de la République man may vice président assemblée nationale mu woolu ma ne ma damaa bëgg waxtaan ak ah waa baax na quatre heures danaa ñëw sama mbokk yi dañoo dénk ñu ne ñu foog ma wax leen nan laa wax ak président de la République dana doy waar man Daniel Kam bokk ci ñu ma forme ñaar yëpp laa jàpp jàng ci moom ay homme d'état la ñu xam nañu état mu ne ma moom la ni sooy commencé liggéey si bureau pour l'état dangay fàttali dangay fàttali ci Sénégalais ñu dee ndax Sénégal dangay fàttali Sénégal ñu dee ndax hymne national du Sénégal nga xam ne privilège nga am nekk foo nekk ñuy war a liggéeyal Sénégal ndaxte am na ñoo xam ne dee nañu pour Sénégal am na ñoo xam ne liggéey nañu pour Sénégal loolu moo tax yow nga mun a mun a toog ci liggéeyal Sénégal première leçon ñaareel leçon soo dajee sa autorité ñu ci gën a màgg muy président de la république loo waxanteeg moom seen biir lay des sauf li joxe autorisation nga wax ñaareelu leçon moo ko jógee nag yëgal naa Sénégal yi yëgal naa diaspora ak àddina bi yëpp ne man Mamadou Lamine Diallo opposant de Macky Sall très clair depuis longtemps du opposant parce que de maa dàq de du opposant parce que dama ko mere de amul benn problème ak moom mais damay faral di wax ne moom dafa bëgg a dem Paris te man dama bëgg a dem Goudiri kon su boobaa mën nañoo bokk avion ñun lu ñu gëm mooy état de droit ñun lu ñu gëm mooy démocratie ñun lu ñu gëm mooy président de la république dañoo wàññi dañoo war a wàññi ay pouvoir lu ñu gëm mooy suñu koom-koom ñu teg ko ci yoonu industrialisation ñu andi ay usine xale yu liggéey depuis 2007 bu ñu yàlla nattoo ci politique ñu dugg ci politique loolu la ñuy wax moo tax ñuy wax ni Mamadou Lamine Diallo c'est l'homme aux cinq C constant cohérent crédible compétent et vous pouvez avoir confiance Thank you.